bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñuy topp fii si jumaa ji ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaaro di jiital si nuyoo beeg ziyaaro bi saaxibul fadila cheikh mohamadin muntaqa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te mu ànd ak wér ak njabootu sëriñ bi yëpp ak taalibe yi di leen ndokkeel bu baax a baax si bis bu tedd bii nga xam ne ni seen lañ nekk ni di ñaan suñu borom lépp loo xam ne def nañ ko si lu baax rek mu nangul ñu ko te fulondeel ñu ko te làqal ñu ko foo xam ne yàqu du fa mën a àgg te fekkaloon ñu ko ay at yu baree bare yoo xam ne yëpp dañuy ànd ak wér ak tal ginnaaw loolu niñ ko baaxoo defee rek bi màggal gi tàmbalee ba léegi ànd koog daayiratu Muqaddimatul Xidma fii si jumaay Tuubaa ji si di amal ay waxtaan yoo xam ne lépp day jëm si yaatal njàngaleem sëriñ bi si anam goo xam ne anam gu yaatu lay nekk si lépp day tënku si wàllum xam-xam tey nag dañuy woyal jataay yooyu nga xam ne tàmbale nañ ko bi weer tàmbalee ba léegi ak lu jiitu sax ngir mën dundal bis yu tedd yi rawatina bis bu bi nga xam ne moom lañ nekk muy 18 safar comme ni nga xamee ci programme bi rek tey fas yéene nañoo waxtaanee euh, benn leetar boo xam ne ne sëriñ bi da koo bindoon benn buur boo xam ne ñu ngi koy wax Samba Laobé Samba Laobé njaay leetar boobu lañ bëgg a jàngat génn ci ay. Euh, jàngat ko jàngat boo xam ne nii dana amal njariñ ñi nga xam ne ñooy topp jataay bi fuñ mën a nekk leetar boobu nag euh, wala waxtaan woowu nag bu soobee yàlla danañ si ànd ak suñu ustaas bu tedd bii mooy al ustaas Cheikh Abdoul Ahad Niang di ko sant bu baax baax si euh, njëlbeen si nangu gi ñu nangul jataay bi ndax ni nga xamee rek si programme bi am na keneen koo xam moom la ñu waajaloon waaye ginnaaw bi amee ngànt jokkoo ko moom moo jàppandal ko lool lool lool kon ñu koy sant bu baax baax di gërëm di ko ñaan suñu borom defal ko tawféex ak euh, dimbal te yokk xam-xamam xam naa nag euh, dañ dañu guddal si taqdim bi dañ koy jox rek ngir mu dugg si waxtaan wi ngir jàngat leetar bu am solo boo xam ne boobu nga xam ne sëriñ bi bindoon na ko te jëmale woon ko si boor boobu buur ba Jolof te ñu ko doon wax Samba ba Ndiaye kon sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay tatagal li la dalal baax a baax si daayiratu muqaddimal xidma di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di la ñaanal suñ borom fecc sa làmmiñ ba li nga waaja lépp ka jàllale ko lépp ànd ak euh, tawféex jariñ li si juddoo lépp suñ borom defal ñu tawféex ba ñu mën koo jariñ mm-hmm. kon suñu ablaat euh, fal tatafaddal mashkuran majura mm-hmm. wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammadin il amin wa ala alihi wa sahabatihi lgurri lmayamin wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginaaw bu ñu sant yàlla sun borom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñi nga mbégte ngir fas yéene ànd ak yéen jotaay bi ci njëlbeen ñuy nuyu waa daaira muqaddamatul xidma te di am mbégte lool te di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal suñ boroom gën leen a yokk doole ak pëstéef gën a namm seeni xel ñuy liggéey ci loo xam ne dafay jariñ société bi muy daayira boo xam ne li muy liggéey ci wàllu xam-xam bari na bari waaye boo xam ne xaj na ñoom mënuñu koo takk waaye ñuy jëriñoo ci ñoom xariban aw ba baidan daanaka mën ni su ko takk liggéey yooyu nag ñu ngi ñaan suñu borom gën koo barkeel waaye tam ñu am ca ngërëmal yàlla borom bi subhanahu wa taala am ca ngërëmal yonent bi alayhi salaatu wasalaam am ca ngërëmal sëriñ Tuubaa yal na ko yàlla def sëñ Saliou ñu lay nuyu ci dalal gi ñu dalal ci turu daayira muqaddamatul xidma ngir fas yéene jàngat euh, bataaxel bu bu nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko jëme woon ci buur bi bu nga wax ñuy ñaan suñ borom defal ñu tawfiq ba lépp luñ fi indi mu nekk loo xam dina dëppoo ak ngërëmam te kaddu yi fiy génn yàlla def ko muy kàddu yu génne ci gémmiñ gu jubloo jariñ ñami waxal dajeeg ñopp nopp yu jubloo jëriñu ca lañ leen di wax su ko defee it xam naa ci njëlbeen sëriñ <clears throat> euh, Saliou mm-hmm. xëy na ni leetar bi tëdde <clears throat> ak li tax ñu dakk tomb bu mel ni fas yéene ko waxtaane xëy na daayira bi dafay dund ci jamono joo xam ne jombul lépp luy xew ci jamono moom da cay feeñal participation ci luy jëriñ société kon mu jaadu te normal lépp loo xam ne nii borom xam-xam yi wax nañ ca tam mën a gindi ay nit teg leen ci yoonu siraatu mustaqim mën a stabilité mooy ak dal cim réew day ba def ca liggéey su boobaa nag liggéey ba mu cay def ba ca gën a ëppati solo mooy jële ko ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu mbindum sëriñ bi it bu ñu koy jël ñun dañuy leeral ndax ci arab la ko bind te ñiy topp bari na ci ñoo xam ne dégguñu làmmiñ yaaram kon ñu jël ko leeral lim wax ci arab ñu leeral ko ci wolof te buñ ko leeralee ba noppi nag benn bu ci ne buñ ca leeral def ca ay taxaw seetlu maag ñi nga xam ne ñoo topp jotaay bi ñu bokk ko jariñoo mm-hmm. su boobaa nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne liñ ci mën a jariñoo mooy lu ci nit gis mu nekk wàllam na ko jël lu ci nit gis mu nekk wàllam na ko jël discours bi mooy wala wasiya bi man ngaa wax ne bataaxel la bu bàyyi ko ci kilifa ak diine kilifa ak diine goo xam yàlla ko ñor adduna mësu ko jëm nag ci kilifa ak adduna la yor loolu bataaxel bi wundu mm-hmm. mooy jóge ci kilifa ak diine gu yàlla rekk ñor adduna mësu koo jaral dara mu yàgg a marqué jamono yàgga jàmmarloo ak jamono ci lépp loo xam ne day tax ak wàcc yoon am ndax xam nga ne pour cig laytaay jóge mooy Serigne Touba radiyallahu anhu xam nañu ne jëmmi jëflanteeg buur ak jege sëñ bi daf ko nan daw mhm. maanaam sàkku dara ci buur wala sàkku ndimbal ci buur feeñ na ci mbindam lu bëree bëri mhm. kon nag faw leetar bi muy jëme ci buur lem koy wax lépp lu koy amal njariñ la waaye na fekk buur <coughs> may ko nopp te di ko diglu mhm. kon leetar bi jàppal na ci kilifa dina la bàyyi ko jëm ci kilifa adduna di ko wan fa mu war a tekk tàkk te kilifa adduna gi moo ko sakku mhm. euh, ki mu jëm muy Sàmba Lawbe Penda Njaay mu nekkoon buur ca jolof te buñ waxee mu nekk nekk buur waxin la ci ne am na palug àdduna am na doole àdduna hmm. waaye ku yàlla ñor te nga gis njariñul sa mbokk kàddu gaa nga koy wax doo ca xool daraja ji mu yor ci àdduna la nga koy wax rek mooy lu mu xool ne bu ko digloo te jariñoo ko dana ko teg ci yoon ndax dañu mën a sadiquka man sadaqaka la man saddaqak sa xarit mooy ku lay wax dëgg waaye du caagi na ku wax na loo wax mu ne dëgg la te ku la woon dëgg moo yow ànd kon ñu bàyyi xel ci ne eh, kilifa ak diine bu waxee ba noppi la war kilifa ak àdduna ginnaaw moo sàkku labiré ga mu topp ndigal loola suñ seetlu ñu tàmbalee ci mm-hmm. bataaxel bi bataaxel bi nag ku koy jàngat man bala ngay tàmbali boo doon teg benn benn benn xotpa benn plan boo xam ne da koy tër ngir mën a andi anasir éléments yi ñëw ci biir discours bi ak ni ko sëñ bi ràbbe da ngay yéemu ci waxi gaa yu baax yi te tëral na ko ab muqaddima muqaddima mooy benn introduction introduction bi da cee feeñal laytaay bi daf cee feeñal luy tegtale lim bëgg a wax te loolu yéen ñi yëngatu ci wàllu adab ak balaa mm-hmm. ci wàllu way lañ ko xamoon mm-hmm. wàllu way li ñu tudde baraxatul matla mm-hmm. wala bara mooy kii wax mu teel a feeñal lam jëm te eggagu ja loolu feeñ na ci biir muqaddima bi kooku mooy benn ñaareel ba comme buur lay waxal jox na jox na ko ay tawjihaat ci nan la war a jàppe nguur nan la war a jàppe nguur na ko ay orientation ci nan la war a jàppe nguur ñaar ñetteel ba wan na ko bu yoree nguur nan la war a gouverner pour am jàmm muy ñett ñeenteel ba wan na ko ne nguur boo ko yoree jàppal ne du sax léegi mu tàggoog yow jëm ci leneen kon nag góorgóorlul balaa muy jóge ci sa loxo nga def ca la nga war a def kooku mooy ñeent ba ca mujj nag wan na ko ne boo folli koo am na foo war a jaar mooy tax boo folli koo am jàmmi adduna am jàmmi àllaaxira kon manees na ko ne ci juróomi benn muqaddima ak ñeenti mooy introduction bi ak wan ko nan la jàppe nan la war a jàppe nguur ak wan ko bu yoree nguur nan la war a doxale ak wan ko ne li mu yor ci nguur gi léegi mu génn ci loo kon na farlu ak itam bu folli ko lay xew bu fekkee ne jaar na fa mu war jaar kon ci ñeenti tomb yi ci lañ bëgg a def ay seetlu ak taxaw seetlu hmm. mu tàmbali ne audu billahi mawizatun li Sàmba Lawbe Njaay euh, may wax ne ñiy gëstu te doon ay gëstu ko nekk ay intellectuel wasiya bii pour ku ko bëgg ku ko bëgg a xam téere bi nga xam ne mi ngi dokk ci yaraw durayaahin mool mu tumram min wasaya cheikh ahmad min was min wasaya cheikh al khadim ahmad bamba radiallahu anhu mu nekk mool biñ mool ci 2018 mool bi boo demee ci page 254 jàpp 255 fii la wasiya bi nekk ci képp koo xam ne ni bëgg naa gis waxi sëñ ba ak nam ko bindee mu tàmbali na aoudu billahi maa ngi muslu ci yàlla mu musal ma ci seytaane foofu xat teel na koo wax ne ku yàqule seytaane la yàqal ku yàqule rek seytaane la yàqal kon ku bëgg a mucc ci yàqule da ngay dellu ci yàlla mu musal la ci seytaane kon bu audu billahi bi mu ne audu billahi ginnaaw ku mus ku mucc seytaane la ku ku ku ku yàqule seytaane la yàqal pour nga mucc ci da ngay dellu ci yàlla mu teg ci bismillahi di wane ne kon ginnaaw bu ku bëgg a mucc da ngay dellu ci yàlla kon ci tur yàlla moomu lay tàmbalee lépp lu may wax ak lépp lu may jëf loolu mu ngi koy junj ne nit ki bu bëggee doxal yoon bëgg a jaar yoon faw mucc ci seytaane ca seytaane pour nga mucc yi faw nga doyloo yàlla mu ngi junj rek di lay tay li bëgg a wax si mu tekki ne inna waliyallah far tëj wax ja wan ko ne ko yàlla lay musloo ci seytaane te yàlla ci lay tàmbalee te yàlla mooy sama kilifa te képp ku yàlla nekk kilifaam mu mucc ci seytaane ndax seytaane xam nga ne ba mu waxee ne la uwiyannahum ajmain <coughs> loolu la waxoon danaa leen beru waaye yàlla nee na koon inna ibadi laysa laka alayhim sultaan kon ku ku def yàlla muy sa kilifa da nga mën a mucc ci seytaane toujours mi ngi teel a wax buur bi fi mu war a nekk pour mën a mucc ci seytaane ndax mooy yàqal ku yàqule mu tàmbali daal ni alhamdulillahi alladi lam yazal wala yazalu maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne mësu fee jóg te du fi jóg ba mukk loolu rek ci njëlbeen di wax buur wax ko loolu teel na ko junj ci ne lu dul nguurug yàlla dana jeex bis xam nga siñ sariw mm-hmm. euh, booy jàng ci suratul fatiha Euh, da ngay jàng maliki yawmi diin maliki yawmi diin foofu mu fassiroon dañuy faral di wax ne maliki yawmi diin mooy buurub ëllëg yawmal qiyaam di fay lu nit defoon waaye nag mu ne mooy maliki yawmi diin waaye mooy mooy maliki yawmi dunyaa adduna bii moo ko moom al àllaaxira ba moo ko moom waaye lu tax mu ne maliki yawmi diin mooy adduna bii daa am ñu ne ay buur lañu waaye àllaaxira bi amul kenn kuy wax ne buur la fa. limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm <laughs> ana ko am nguur kenn du tontu. Hmm. mu ne lillahi alwahidil qahar moo tax mu ne kon malik yawmi diin foofu moom amul nguur fii ci àdduna nag am nañu ne ay buur la ñu. Hmm. <laughs> léegi nag mu ne maa ngi sant yàlla bi nga xam ne mosu fee jóg te du fi jóg ba mukk kon teel naa wax buur bi ne ko nguur goo mën a gu nit mën a yor pouvoir bu nit mën a yor doole ju nit mën a yor dana xëy bis ñàkk jenn doole rek mooy sax. te du ñàkk ba mukk denn loolu rek moo fi nekk te du fi jóge ba mukk mooy doole yàlla borom bi subhaanahu wa taala toujours ci laytaay bi muqaddima bi te egseegu ci li muy wax mu ne wasalaatu wasalaamu ala sayidi l umarai wal wuzarai wal nisaai wal rijal xéewal ak mucc dolli tedd nga ak dolli wóolu yal na ko yàlla sotti ci sangub buur yëpp sangub jëwriñ yëpp foofu sëñ Saliou mhm. da nga fiy dégg ne mi ngi wax buur bi xaat ne ko ku nekk buur jiita dara nekk ca kilifa kay sab sang mooy sayiduna muhammad ci loolu alayhi salaatu wasalaam doole joo mën am ak kilifteef goo mën a am ka nga xam ne ne mooy sab sang di sangu mbindeef yëpp mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa kon nag boo bëggee am réussite ci ni ngay doxale jàppal sayiduna muhammad mu nekk sa royukaay ca nam doon doxale kon mooy sangub kilifa yi mooy sangub buur yi mooy sangub jëwriñ yi kon laaj na yow mi nekk jëwriñ wala nga nekk kilifa nga gëstu nam doon doxale hmm. ndax si yonent bi sallallahu alayhi ci jamonoom moo nekkoon faqih bay àtte ci diina ji nekkoon euh, xaakim juge bi àtte ci tribunal bi faqih bi ubbee ci diina ji nekkoon juge bi àtte ci tribunal bi nekk général bi jiite armée bi nekk imam bi jiite jàkka ji hmm. lépp moo ko boole woon kon nag doxal yoon ba gindi mbooloo mi teg leen ci yoonu sirata mustaqim kon képp koo mën a ku mën a doon ak doole jomaneel jàppal sayiduna muhammad mu nekk sa royukaay jàppal manhaja mu nekk sa manhaj ci islah da ngay jubal te doo dëngal kon teel naa wax buur bi rek li mu bëgg a wax si hmm. ndax buur bi moo ne ko mi ngi ñëw ci kanam wa ala alihi wa sahbihi dawil inabati ani nuqsaani ilal kamal yàlla na suñu borom dolli tedd nga ci ay ñooñam ak i saxaabaam ña nga xam ne dañuy tuub ak man daw ak mànkite jëm ci mat loolu wax na ko xaat ne ko nit boo nekkee ci mànkite gis ku la cay génne lay fulla ak fayda mooy nga jóg ci mànkite dem ci mat hmm. ndax bokk na ci xel boo nekkee ci lu dul noona am kula la wan ne lii du noona nga bàyyi lu dul noona jëm ca lay noona boo nekkee ci manqué am ku la wan ne lii ak manqué te la lee moo di mat nga bàyyi manqué ga jëm ca mat ga kon li mu tàmbalee mooy muqaddima bi rek hmm. bu fi yemoon mu doy sëkk. la ci waaraate gu mu jox buur ba jolof. waaw ah, sëñ Abdoulaye maanaam kon daal day mel ne. Mhm. maanaam risaala bi. Mhm. wala bataaxee bi moom. Mhm. day mel ne kalima bu ñu si jël rek. am na maanaa boo xam ne moom lay wënd. maa la wax loolu. boo xoolee si commencement bi. auzu billahi bismillahi inna waliyallah. maanaam inna waliyallah rek. maanaam mel ni kilifte gi. delloo delloo na ko yàlla xaat nga xam war na ko nag buur buur nga waaye nekkoo sama kilif. loolu rek ñu am jàngat jàngat la boo xam ne bu am maanaam baat yi daal maanaam dafa dafa yéem risaale bi daf ko tànn hmm. xam nga li ñu wax ne ab bindkat hmm. bu bind ci domaine bu ko yitteel daf koy tànnal ay baatam hmm. sëñ bi li muy wax li muy bind buur bi baat yi daf ko tànn moo tax baat boo ci teg rek mu mat mu mat sëkk palaasam day am jeexit ci ka ngay waxal loolu royukaay royukaay la ci war a doon ci képp kuy kilifa booy labiré buurub adduna dëgg boo ci jëlee royukaay ci sëñ bi rek ba sawi nuqsaan ilal kamaal googu war na yow mbóor nga a yëlëf nga ñu bari waaye teewut tey moto moto da ngaa manqué <laughs> yàlla rek a mat yàlla rek a mat waaw ah, yàlla rek a ku dul yàlla day day manqué léegi nag lay am solo mooy mm-hmm. manqué googu boo gisee ku la ci génne nga génn ci nga génn ci gaaw te na ko leer tayib mm-hmm. léegi mu ne haada wa innahu ila amiri jolof sàmba lawbe min abdi mawlaahu almuktafi bima awlaahu ahmad abna muhammadin ilmaki bi salaamin taamin wa ikraamin am sëñ Saliou mu ne lii may bind nii mi ngi jëm ci buur ba nekk jolof ñu koy tudde sàmbalo bi lii mi ngi bàyyi ko ci jaamub boroomam bi nga xam ne la ko yàlla jox doyloo na ko la ko yàlla jox doyloo na loolu message la <laughs> di wane ne yàllaay joxe waaye bokk na ci nite lu mu la jox nga doyloo ko. nga doyloo ko te la mu la jox boo ko doyloo da ngay nekk ci jàmm ndax doomi aadama dañuy faral di wax ne doyloo fay nekk ci moom waaye du doyal mukk dëgg la doomi adama lu mu bëgg lu mu gis bëggaat leneen kon nag teel naa wax xaat buur bi ne ko ki lay jox lii jaamub yàlla la te it doyloo na la ko yàlla jox tayam ca mhm. ni ki noonu tamit wan maanaam wan na ne ko yow moom ab jaam nga rek mhm. waaye teewul tamit jox na ko ormo ji nga xam ne moom la ko <laughs> yàlla jox amiri jolof amiri mhm. jolof loolu da cee roy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ar rasailu ila al muluk mhm. <laughs> ba muy bind ci dee ko jëmee ci buur yi di leen woo ci lislaam ila nangam azimi nangam azimi nangam kenn ku ne laa jox daa jox sa daraja xam nga dañuy wax ne euh, boo bëggee dara da koy laytaay watul buy rëmi na boob mhm. yaa gis nga booy waxante kenn te bëgg mu diglu la da koy da nga koy teg place am ba noppi mhm. waaw même même même ab bandi sax wala bu fekkoon ab bandi boo xam dëgg la ku ñàkk solo la nga ñëw nga koo xam ne ku ñàkk solo la mhm. nga ne ko nga ko sëñ bi nga waxanteeg moom ne ko sëñ bi na nga defaay léegi dana la may nopp la nga bëgg a wax lépp da koy mën a wax Eh, boo ñëwee na ko yow waaw yow daal yaa bon dëgg rek booy la kon booy tàmbalee lu nit ñàkk ñàkk solo mhm. booy wax moom jox ko cër jox ko cër bu yàlla jox mhm. wa wa inna aw iyaakum la ala hudan aw fii dalalin moom mi wax xam ne ne moo nekk ci njub kon sëñ bi dafa roy foofu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiri jox ko jox imaam te it yemu ca bi salaamin taam wa ikraamin aam ikraamin ah. hmm, hmm. mi ngi koy jox mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy jox mi ngi koy wàcc palaasam maa ngi lay nuyu nuyu bu mat sëkk teg la sa palaas teraanga ji la yàlla jox maa ngi koy nangu di di di ci teraanga ji wa ikraamin aam wa dégg hmm. ne ko wal ilaamu bi anni ataani xaamilu haada alkitaabi min ardika wa qaala lii innaka tusallimu alayya wa tatlubu minni al mawisa fa bi dalika katabtu ma lafzuhu lu ko wax foofu daan li ma lay xamal daal mooy dafa am ndaw lu ma indil ab leetar bàyyi ko fi nga nekk wax ma ne ma yaa ngi ma doon nuyu hmm. yaa ngi ma doon nuyu te it da doon sàkku ci man ma waar la hmm. xam nga ne ko toll ne sëñ Tuubaa moom boo ne ko waar ma da nga dégg waar moom dëgg xel ci ne lettre bii buur baa sàkku sëñ ba mu war ko. loolu tamit fi kii man la sëñ bi. maanaam buur boo xam da ngay sàkku si kilifa diine. ñu war la mawida ah. waare loolu tamit eh, lu mat a a lu bu am solo mm-hmm. ah. eh, gis nga nag day mel ne xañ na wàcc yoon moo fi nekk waaye bari na ci buur gën a jub. mu mm-hmm. dañoo am kilifa. goo xam ne dañuy dem ci moom di inspiré ci moom. Mm-hmm. mu leen di teg ci yoon léeg-léeg. dañ ci jox ay ay misaal yu bare bari maanaam li ëpp ci buur yi am nañ benn cheikh wala benn sëriñ boo xam ne ni dañ ko daan dañ ko daan déggal bu baax dañ koy déggal mu leen di mu leen leen di guider. di leen teg ci yoon. Mm-hmm. Euh, nit mënut xam lépp. dëgg la man nekk ci ndëngte te doo ko xam. Mm-hmm. ndax pouvoir adduna nii wala doole boo ko yoree léeg ñëpp duñ la ñemee. dëgg la mm-hmm. am na bëgg a wax dëgg waaye duñ ko ñemee. duñ ko ñemee. <laughs> waaw wax nañ ci sëñ Abdou Lahad mii nee nañ li taxoon muy teg ci jumaa ji eh, alquran ji dégg naa kilifa di ma wax ne daa wax ne nit dana toll ci foo xam ne kenn du ko ñemee waar muy jël alquran yàlla ji nga xam ne la yemal moo tax ñu ko daan teg noonu doon taalibi suñ bay jaxate itam wax nañ ne loolu tax moom woon ko am na ko toog moom sax nee na alquran di jijib jijib waaye sëñ bi di am nu muy def daal di mel na ku gis lu mu ragal ba moom mi toog moom sax dafa tiit waaw loolu li ma bëgg wax foofu mooy mooy buur buy sàkku ci kilifa ak diine ku mel ne si ku toll ne Sëñ Tuubaa it ko waaram kon mooy ko sàmbalaw yooyu am na fu mu nekkoon am na fu mu nekkoon am na fu loolu dañ ko koy nangul mm-hmm. ndax loolu raa ndax ndax ñaare mm-hmm. ku dëng du bëgg ko waar dëgg na ñaare ñaare koo gis mu bëgg a digluy waar rek am na fu ne boo xoolee sax léeg léegi yenn boor yi boo leen gisee. Mhm. ñoom ñi leen di wax dëgg. Mhm. toujours dañ leen di écarté dañ leen di dañ leen di mere la wax. waaw ah, dañ leen mere. fi fi mu ne nii fi ne nii booy def waxtaan nii. Mhm. ñi nga xam ne nii sax boo jaaree ci yoon wa. xollati seen i góom. duñ la xaar nga eggal. <laughs> dañuy dem sañ bi. dañ dem duñ la wax duñ la wax ku mën a toog di xaar rek. jàppal ne am na lu nekk ci moom. am na waxtaan yoo xam ku ko mën a diglu rek. bàyyil xel ci ne am na baax baax bu nekk kon daal day ne kon buñ leetal bi foofu moom day mel ne Samba moom bëgg na lu baax ah, dëgg bëgg na lu baax waaye moom boo ko boo koy wër ba fekk ba ah dajeeg sëñ bi moom hmm. yaakaar naa foofu moom man baaxul baax dana mat sëkk nag dëgg moo tax it mat na sëkk kon tamit taxawaay bi sëñ bi taxaw foofu hmm. waar gi mu ko war loolu mel ne kilifa diine war naa mën a tey hmm. daf ko ko daf ko a wax rek ci man ma waar la <laughs> dëgg la yaa sàkku man ma waar la xamal ko li mu bëgg kon ah. xam naa ah. ngir moo bañ a kii dañuy bàyyi nga aywa mu ne ko li ma la bindal mooy lafs bi mooy yaalam foofu mi ngi koy mi ngi dugg ci di ko leeral ni war a jàppe nguur ni war a jàppe ak nguur ilam xam daane ko ilam bi anna dunya la tatika illa bima tanziuhu min mislik wala tati mislaka illa bima tanziuhu minka mhm. li ma lay digal di la ko xamal li ma lay xamal daal mooy lépp lu la jox ci sa morom la ko nangoo lu mu jox sa morom ci yow la ko nangoo teel na ko wax waxaat ne loo jot rek am na ci loxo yu mu nekkoon na fa mu nekkoon dara am na ci loxo yu mu mm-hmm. loxo ya kay la tax nga jot ca kooka dafa jóge mm-hmm. mi ngi mel ne ndono rek kenn mënut a doon te ngay doon faru dëgg bal bala ngay doon rek day fekk ngay doon jóge fa kon nag lu la adduna jox ci sa morom la ko jële mm-hmm. lu mu jox sa morom ci yow la ko jëlee kon adduna ni muy ni muy ni muy doxale mooy day jël ci la jox di jël ci yow di jox sa moroom da waraan day war rek maanaam li mu lay jox moom moom dara dara du mm-hmm. nekk ci yomb-yomb mu neex lool ngay bég waaye léeg-léeg nekk ci jafe-jafe mu naqari lool ngay tiit nga tiit dëgg la inna ma al usri yusran mm-hmm. al usru la mm-hmm. yusru la yastamir wa ida jaa al usru jaa baadahu al yusru wa ida jaa al yusru jaa baadahu al usru al usru wal yusru diddani laa yajtamiaani kon duñ bokk daje hmm. kon nag boo nekkee ci yusru del dégg del ci mbir mu yomb del néggandi ko usru ne mi ngi ñëw hmm. boo nekkee ci usru it ma xamal ne yusru moo tax ñu ne jafe-jafe boo gis hmm. yomb yomb cay teg waaye yomb yomb boo gis it ba mën ngaa tiit jàpp ne jafe-jafe ñëw kon teel na ko wax ne ko adduna dalay nax bu mu la war loo jot am na ci kum ko nangoo nag da nga jàpp ne da beral nangu ci kee saxal ko ci yow du jóge ci say loxo déedéet bal ni muy nangoo ci keneen jox la noonu lay nangoo ci yow jox sa morom. loolu day mel ni mën nañ say jàngat euh, jamono ji. Mm-hmm. yenn réew yi réew xam ne nii. Mm-hmm. da gis ko toog rek. Mm-hmm. day mel ne moom. nga eh, doo fi jóge mukk. day mel ne yàlla dafa nar a samp daal nga xam ne. day mel ne koom du faatu. ne fa dëj rek. waaw ah, loolu di loolu di bokkut ak yow bokkut ci yow te. <laughs> waaw <laughs> wa ak yoon la. Mm-hmm. waaye foo ko gisit mm-hmm. foo ko gisit jàmm du fa am ñaare. dëgg la maanaam xusra rek. xusra gi rek <laughs> te problème bi yaa ko jur eh, yaa ko andi kon adduna lu mu la jox ci sa morom la ko nangoo. Mm-hmm. lu jox sa morom ci yow la ko nangoo. mu ne ko fa yow man takunu muinatan laka ala gayrik wa yow man takunu muinatan li gayrika alayka adduna léeg-léeg mu jàppale la. ngay xëccu kenn dara mu jàppale la nga am la nga bëgg waaye léeg muy jàppale keneen koo doon xëccal mu am lam bëgg yow du la nga bëgg kon léeg-léeg àdduna ngay xëccoo kenn dara mu jàppale la nga am la nga bëgg ko amul lam bëgg waaye léeg-léeg mu jàppale keneen ku doon xëccoo yow mu am lam bëgg yow amoo la nga bëgg maanaam li mu bëgg wax ne àdduna léeg mu fara keneen léeg mu fara yow léeg mu fara keneen mm-hmm. kon noonu lay doxee du faral yow toujours du faral yow toujours mukk man du ko nii neex daal mm-hmm. waaw kon noonu la addunay doxee ku léeg mu far la léeg mu far keneen. comme ni ñu koy gis si politiciens yi rek léeg-léeg nga gañe. léeg-léeg ñu la léeg su ko dëkk di gañe mm-hmm. buñ ko doon wax ci suñu réew mii muy Sénégal sëñ sëñ sëñ si yàlgu mm-hmm. Senghor dana dix Abdou Diouf ne déjj <laughs> Abdou Diouf ne dix Wade ne déjj Wade Macky ne déjji Macky dana ne diis keneen ne déjji sëñ bi léegi noonu lay demee rek maanaam euh, dara du sax waaw mu ne ko ba tey toujours rek li nga war a jàppee nguur boo jàppee nguur nag boo ko jàppee ni moo tax damay faral di wax ne discours bii wallahi alazim dañ ko waroon a traduire en français anglais espagnol ci langue yëpp waxuma la sax Sénégal waxuma la Afrique mais adduna bépp képp koo xam ne dañ laa dañ dañ dañ la war a far nga nekk président ñu jàngal la discours bala nga faru même sax di ko di ko dugal ci di ko ci enseignement universitaire bi nga xam ne dañ koy jàngal ñi nga xam ne dañuy dañuy suivre wàllu science politique ñu leen di jàngal discours bii ñu màggale ko kenn du ci doon président di def lu mu war a def bu fekkee ne jëfe na jëfe na jëfe na lettre bi mhm. mu ne ko wataaratan tuddixiku ka wataaratan tubkii ka àdduna léeg-léeg mu jox la la nga bëgg ba ngay ree nekk ci mbégte waaye léeg-léeg mu indi law naqar ba ngay jooy nekk ci fitna ba tey li ma la ma waxoon moom lay répété ci même même beneen sens rek te yaakaar naa loolu ñun ñëpp yéen xal yi ñu ñun ñu am ñun ñëpp xam nañu ne loolu de mook àdduna ànd benn koñ da fay gis ñee di jooy ngir dañoo faatule ñee di bég ngir dañoo am ku juddu fee nit a fa manqué fii nit a fi yokk fee sarax la tudd ñuy jooy ko fitnaw fii ngénte la tudd ñuy béggal ka kon noonu la addumee adduna dafa lay reeloo ndax dala la indi lu tax nga bég waaye noonu la lay indilee aw naqar ngay jooy kon li li li tax nga mën a waar yow buur bi jolof mooy bu la adduna indilee mbégte ba ngay ree fàttalikul bis ba mu indi naqar ne jooyee cay tegu wal yëpp ko kasiran ahsant ya cheikh kon moo tax mu tegal ko ca ne fala taxtarir bi daxikiha ree yam lay ree bul ci nax bul ci waru ndax fa innaha gaddaaratun makkaara adduna ab warkat la adduna am naxkat la daf lay trompé li sëñ bi la doon wax ne adduna ku ko fes ku ko def aw fas ba war ko maa ngi xool janj bu la daane waaw te nit ñi ku leen topp danañ la dugal ci guut ndax sëñ bi la doon wax ne nit ñi mën nañ laa yëkkati ba tong la ca kaw waaye duñ la fa àjjee nag te kaw mëni su fa dëkk cëppeeloo fa sës te cëppeeloo lu ne xaj na ci kon naka moom buñ la tooyee nga laag kon mu tee ko wax mu ne adduna ab naxkat la ab warkat la wa am qalilin ni nim doon reyee taabisu wa taxdan wa tumkir kon mbégte mam andi woon ba tax ngay bég diir bu gàtt mu andi aw naqar ak fitna sëñ Saliou ci xitaa boobu ci faqra boobu mooy paragraphe boobu da nga ciy jàngete ne sëriñ bi wax na Samba Laobé nguur nguur bu ñëwee ci loxoom ni mu ko war a jàppe te bépp président bu jàppee nii nguur doo xababal doo fitnaal doo waru doo fuuy doo fakku. kon da day mel ne sëñ bi diggante boobu li mu fi mooy. ñu mm. bonne gouvernance wax bonne gouvernance. nga war a jàppee nguur. Ah, loolu la loolu la fi jàngale. ni nga war a ni nga war a jàppee nguur rek. ak kum mën a doon te bul yem sax ci nguur lépp luñ lépp luñ fal nit rek moo xam njiitul daayira la mm-hmm. moo xam njiitul fédération la moo xam njiitul association la entreprise société jàppal ne na ko war a jàppe rek mooy daa jaar ci say loxo dana dem ci yeneen loxo dafay mm-hmm. simple mm-hmm. ci say loxo dana dem ci loxo rek waaye te loola boo ko xasee xam doo ko jàppe sa moomeelu bopp te it fit fitna du gar kon faqra boobu rek faqara la bu am solo ci biir mawisa bi te yaakaar na mm, képp ku ko diglu di kilifa dana la amal njëriñ ko loolu mooy faqara bu njëkk bi tombub ñaareel bi nag sëriñ bi ñëw di ko leeral nan la wala gouverner mm. ñoo dugg si mm-hmm. moom nekk fa di ko wax naan ko mm. ragalal yàlla ak bàyyi ah, fa di ko ko dal day ne nguur moom kilifa diine gi bu fekkee dafa jaxasoo nguur ba nguur ga ba maanaam ba am lu mu soxla si si wàllum diine hmm. bu fa nekk yàlla ak déedéet déedéet loolu loolu mën maanaam maanaam kilifa kilifa diine ay ay ragalal yàlla yu mel noonu loolu tax mu ragal yàlla léegi yow lay tax mu ragal yàlla ngay jaar da nga lay tax mu ragal yàlla waaye boo ragal ragal ragalal yàlla boo ko waxee nit moom day jaxasoo sax daal lan mooy ragal yàlla léegi nag lii ragal yàlla ci moom mooy mu jàppee nguur nii. kon daal day mel ni ku nekk daal am na maqaama ragal yàlla goo xam ne oh. bu dee nguur bu dee euh, kilifa gi xam ne moom lañ te mu nekk ci kaw. waaw moom ragalam yàlla mooy ni muy doxalee nguur ni mu war a doxalee nit ñi. Mm-hmm. ni mu war a jàppee nguur. Mm-hmm. ni mu war a respecté nit ñi nga xam ne ñoo ko fal. ginnaaw yàlla loolu mooy ragal yàlla ci moom. Mm-hmm. waaye euh, di jooyee nangam ak nangam te fekk yow li ngay def dara jubu ji loolu taxu ñuy wax. waaw kon li am solo mooy euh, bu bu bu ne la war na xamal ne lépp loo xam ne ni nguuram daf koo laaj te lay tax mooy tax mu jub mooy tax mu jubal dañ ca war a jaar waroo ko bàyyi kon loolu lu am solo la tayib ndax discours bi moom xam naa ne koo topp benn benn faqra mën naa jël ay waxtu yu bari bari mu ñëw nag ne ko nag boo jàppee nguur nii ba noppi nan nga war a gouverner ba nga am bon gouvernance nii ngay doxale nii mu ko sant nii boo ko doxalee eh, doxal yoon dana la yomb loolu na ci ñaari pàcc la benn pàcc bi ci nekk mooy wa alayka bi i'anati du'afaa'i wal fuqaraa'i wal masaakin yàlla la jox doole dooley dooley kattan dooley nguur dooley kaaraange dooley am-am mm-hmm. kon kattan googu ak nguur googu ak kaaraange googu ak am-am boobu ñi nga jiite nañ ci gis seen bopp. da ngay jàppale da dimbale néew ji doole yi ak foqaraaw yi ak masaakin yi jàppale leen te dimbale leen. ndax ñooñu ay doon faaw lañ. ay doon faaw fa nga ñoo la fa teg. ñoo la fa teg bu ñu wootewutoon doo falu <laughs> doo falu kon nag bàyyi leen xel baax na ndax day mbir moo xam ne nii yow boo xasee nekk ci bopp la la fay dugal du la fa génne ci yomb. te bu ñu xamoon ne boo nekk ci bopp nii ngay mel maanaam lu kon nag li am solo mooy boo faloo nga bàyyi leen xel ci jàppale leen dimbale ñi nga xam seen loxo jotu seen ginnaaw euh, yërëm leen te jàppale leen. maanaam dàq na foofu ñi nga xam ne ni. Hmm. bu ñuy wut nguur moom. Hmm. ñu war jot leen dana xam nga foofu euh, si yow yow loolu loolu moom sëñ bi daf ko télémétrie xam nga xam nga gars yi dañuy faral di séddale. Hmm. mbir def ko ñetti pàcc. am na ku ñu tuddee homme politique mm-hmm. ñu tuddee rajulu siyaasa mm-hmm. dafa jàng science politique ba spécialisé ji kooku moom tuddee politique homme politique waaw maam ñu tuddee politicien kooku la ñu tuddee al muxtarifu bi siyaasa moom daa am métier mu wutee xaalis métier ma muy wutee xaalis nag politique da jaa bokk mm-hmm. moom ay ay doxal ay yéwén ak dara ñoru ko ci li ko ci ñor mooy na koppar yu dugg kon am métier la métier politique métier la ko jàpp. kon ay politiciens jamono yi ah ñoo fi gën a bari ñoo a bari sëñ bi am na ku gën a bon mooy politikaar mooy kan mooy al muxtaalu bi siyaasa moom daa am ay ay pexe yu muy jaar ngir wutee ca alal pexe ya muy wutee alal nag politique a bokk moo tax euh, dëgg-dëgg li nga wax léegi booy sakk yomb lool te boo faloo jafe lool du màndarga mu baax ci ku jiite boo jiitee ni nga yombe woon bi ngay sàkku yombe ko bi nga amee te loola mooy ngor ah de de de maanaam bu xamoon ne boo falooy jafe duñ la ko yombalal loolu fi amul luñ fa waxati moom dégg kon benn pàcc bàyyi mu njëkk noonu mm-hmm. ci doxal gu doxal ko rafet ba ca teguwaat mooy lan wal inkifaaf anil jawri wa zulmi boo boo doxalee doxal ko rafet ba noppi na nga moytoo jeng na nga moytoo tooñ ndax kilifa du jeng du tooñ jeng gi nag mooy lan mooy teg nit loo ko wërta teg fitnal nit ju ju wërta fitnaal Mm-hmm. def loo wërta def loolu lañ tuddee jël <coughs> ndax dañ ne al adlu asaasul mulk mm-hmm. ak nguur boo bëggee mu sax justice wala ak maandute mooy tax nguur sax te sax nag ak nguur bu nekkee cim réew buñ bëggee jàmm ka nekk ca bopp day moytoo jëng <coughs> moytoo tooñ mm-hmm. bépp nguur goo xam ne ka ca nekk day jëng ka tooñ nguur lay doon goo xam stabilité te it ñami tooñ ñàkk pexe tax ñuy continuer di muñ te seenu mer léeg-léeg volcan lay doon boo xam bu explosé du baax dëgg la bari na ay violence yu am cim réew ba réew mi amatul stabilité te la ko yóbbu lépp mooy buur buy jeng la moo tax mu teel a wax sàmbalaw bi ne ko ginnaaw booy jàppale ña nga war a jàppale ba nag na nga moytu jeng ak tool maanaam jàppale gi ngay jàppale daal bu si jeng bu ci tooñ bu ci tooñ ku nekk na nga ko jox la nga ko jox àqam mhm. te boo ko jox àqam ba noppi nag na nga ca boole maandu tey teg mhm. boole maandu tey teg ci daal ko ci tegal daal di ko ci tegal ab tëkku fa man zalama nadima wa man jaara baara mhm. daal ne ko kuy tooñ dana rëccu bis kuy jëng nit ña bàyyee la ak la nga yor kon ku bëgg mucc da ngay moytu tooñ tooñ moom ku ca sax sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Saliou bis <coughs> dana ñëw mu réccu dëgg la te léeg-léeg léeg-léeg sax réccu ga bakkanam fekk sax dagul nañ ci ne tooñ li sëñ bi waxoon ne kuy tooñ du mucc kuy fayu du noppalu mhm. kuy tooñ du mucc kuy fayu du noppalu ndax boo nekkee ci barab boo xam ne nii ay tooñkat rek ñoo fa nekk mhm. nga nga continuer tooñ rek yow tax da ngay mujj bokk ci tooñ kat waaye booy defi ku da ngay mujj sonn da ku la tooñ nga baal ko da ngay mujj nopp loolu da bu ñu xamee ne da bañ lii mhm. dañ la <laughs> bu ñu ba xam ne yow bañoo dara dañ la fay romb jàll dañ la boo bëggee noppalu mhm. da ngay bañ a tooñ te ku la tooñ nga jégal mhm. ko booy gis gis lay xaar yàgg nañ ci joxe mel misaal mu xoromu ci yàgg na borom maqaam mi borom maqaam mi ngi koy tudd. Mhm. ci foofu lañ koy misaale. benn naar buy julli ak gone roox ko <laughs> ba ko gone ko rooxee mu siggi naar ba siggi may gone gi ab junni may gone gi ab junni. Mhm. beneen waaye jaayaat fi jaaraat fi di julleeti gone ko rooxati ko waaye siggi rendi gone ga ma irdaawul musaami mm-hmm. ñu ne ñu ne waa ji ko ren di rëyu ko naar baa ko ay naar ba ko may junni ne ko ku fi jaar ku fi jaar defal rek <laughs> kookaa ko rey kon daal maanaam lu mu def rek day mel dañ ko saa a teel a yar dañ ko teel a teel boo ko bàyyi muy continuer dana rey bopp kon foofu suñ sariw mm-hmm. ci paqara boobu boo ci taxawee yaa ngi gis ne kon wan wan na xaat wan na buur bi ni mu war a gouverner mm-hmm. pour am jàmm pour sax nag ñamu jiite ñu bëgg ko lii ku koy def. Hmm. ñu ngay jiite duñ bëgg nga folle ko. dëgg la dëgg la amal leen njëriñ di leen dimbale di leen taxaw ca ca la la yàlla jox. Hmm, hmm. boole ca doo jeng doo tooñ. ah dañ lay bëgg. loolu misaal yi na sax si yenn réew yi. réew yi nit fekk boobu la am. léeg-léeg dañuy bëgg a bàyyi sax mais askan wi ñooy lànk. ndax nit du xam njëriñam di ko bàyyi. te kay ñëwaat xamoo ba xam dana mel ne moom de. kon teel naa wax moom sa buur bi ne ko soo bëggee jàmm soo bëggee gouvernance bu baax dañ cay boole sàmmante ñaar yéen ma wax mhm. amal njariñ ñi nga jiite te di leen jàppale guddeeg bëccëg di ca sonn guddi ba nekk seen jëwriñ mhm. waaye itam doo jeng doo tooñ ñaar yi bu ko nit ki respecté dañ koy bëgg te duñ fa bëgg mu jóge fa mhm. te it ku ko nar a wuutu sonn dañ wax ne liggéeykat biir liggéeykat piir day sonal ku koy wuutu ndax benn mu doon jàmbaar lool mën a jot kooka wala mu doon yembar lool du dem fenn du dañ koy foddi mm-hmm. kon foofu ñaareelu faqara bi war na buur bi ni war a yore nguur mm-hmm. liit képp ku ku ku jiite ñu ñu ñu wax la ko mm-hmm. boo ko respecté sa nguur dana neex dana sedd guyu te dañ lay bëgg teg waaye contraire bi baaxul mooy falu nekk ci buur bi nekk ci nguur gi fàtte ñëpp tëj bunt yëpp fëliwoo kenn doo jàppale kenn sa njariñul bopp nga teg ko ci njariñul kaw kaw njariñul mbooloo mi wëlbatiku nag koo mën a tooñ tooñ ko ëpp doole wan ko di noggatu nit ñi ak di leen gaan gu jég bëccëg loolu mën na indi violence boo xam ne cim réew du fu mu yem yàlla yàlla musal ci mu ñëw nag ci ñetteelu tomb bala ñëw ci tomb mujj bi ñetteelu tomb bi mi ngi koy wan ne lii nga yor. Mm-hmm. xamal ne dafa jaar ci say loxo. Mm-hmm. te nekkoon na ci ay loxo. Mm-hmm. daf ciy jóge léegi demaat ci yeneen loxo. kon war ma ngi koy ko war ne góorgóorlul gaaw bala moo génn ndax ni mu ñëwee noonu lay génnee wala tansa ann alladi fi yadika wa asbaxta fihi min an niam innama saara ilayka bi mawti baadi man qablaka wa bi ixraaji baadihim na nga daal di xam ne li nekk say loxo ci nguur li nekk say loxo ci am koom li nekk say loxo ci xéewal fi nga toll nii ak niveau bii nga toll nii xamal ne la tax nga jot ci ñem nekkoon seen loxo dañ fay jóge bu ñu fi jógee tam doo mm-hmm. kon bind bi la war a jox mooy nañu fi jógee ma jot ci danaa fi jógee keneen jot ci loolu nga ci war a bàyyi xel mm-hmm. ginnaaw nag ñoom ñoom si bañ bañ bañ fi jógee nga ci jot xamal ne wa sa yaxruju min yadika bi misli ma sara ilayka maanaam ni mu ni mu ni mu jógee ci ñoom ñëw ñëw ci yaw noonu lay génnee ci seen yoxo dem ci yeneen loxo mm-hmm. kooku war kooku da ko wan ko mm-hmm. diggante boobu kon gaawal farlul bu baax a baax te gaaw njëkkante bala moo dem bala moo dem mm-hmm. ndax ndax ndax jeexit ja dafay bàyyi bu de lu baax mu bàyyi ko fa bu dee ab safaan mu bàyyi ko bu de aw tagg mu bàyyi ko bu dee aw ngàññit mu bàyyi ko fa kon boo ciy nekk ak lu mu neex neex bu ca nekk ba tax nga fuuy wala nga fakku wala amoo da ci la ngay nekk hmm. kon bàyyi ci xel baax baax sëñ bi baara te ngi na de koy <laughs> diis na gann hmm. gann gann gann laa wax waaye nag jàppal ne kilifa diina gu mat hmm. la mu doon mooy waxante buurub adduna di ko teg ci yoon lii bu ko bu réew yëpp amoon maanaam maanaam ay ay njiiti réew yooyu sàkku ñu waar leen <laughs> ak ay kilifa di ñu mat ya ñu doon di waar jiiti réew yi dañ leen di déggal kon doo gis fitna. <laughs> waaye li mel ni kon euh, lu mu wax foofu mu ne ko li nekk sa loxo. waaw nga xam ne xéwal gi nga xam ne moo nekk say loxo yow. waaw nga ciy xéwaloo. Mm-hmm. rek di noos. Mm-hmm. fàtte ci say famille. Mm-hmm. maa nit ñi. fàtte ñi xam ne ñoo nga war a jëriñ. ne lii nekk sa yow. di diggante bu gàtt day dem. day dem te bàyyil xel ci ne euh, ba ngay falu bu ñu xamoon ne. boo ci jotee nii ngay doxalee nii ngay doxalee kenn du la fal kenn du la fal. moo tax li ëpp ci li nit ñi wax ngir falu léeg-léeg buñ buñ faloo dañ koy fàtte dañ koy fàtte. Mm-hmm. rarement ngay gis daal buur bu mel ne Omar bin Abdul Aziz. Mm-hmm. boo nañ tuddee xam dañ buñ tuddee xamisu xulafa mm-hmm. euh, ci maanute ba lislaam di joxe misaal ci moom euh, ndax ñaare kii bàyyi xel nguur. ak ki bàyyi xel responsabilité ci kanam fa la yàlla mën na allahu alladina sadaqu wala yàlla mën nal kaadibin mm-hmm. te it ñun ñëpp dañuy teew ci kanam yàlla fala hmm? nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin fala naqussanna ali bi ilmin wa ma kunna gaibin mm-hmm. wal waznu yawma idin il xaq mm-hmm. ndax ki bàyyi xel loolu dana dëng dana nekk ci xéewal ba tax mu mu fuuy mu fàtte ko kon teel naa wax buur bi ne ko xéewal gii nga nekk gaawal njëkkante njëkkanteel la sa waxtu. Mm-hmm. ba def ci loo xam ne dañ da ngay bàyyi say basamaat. Mm-hmm. ci fi nga nekk ba boo fi jógee. Mm-hmm. ñu xam ne yow mii kat liggéey nga. ñu xam ne yow mii kat toppatoo nga. ñu xam ne yow mii kat jubal nga. ñu xam ne yow mii kat daawoo jëng. ñu xam ne yow mii kat daawoo tooñ. te dañuy faral di wax ne ki jubal ki koy wutu. lu mu def lu dul jubal dañ ko day teel a feeñ. Hmm. ndax ndax nit ñi dañuy gis luñ miinutoon. dëgg la dëgg la waaw. Hmm. waaye te ki doon dëggalit hmm. bu ko nit wuute te jubal dañuy xam dañuy xam ne juba ngi nii. kee nekkutoon ci dara ñëpp bàyyi ko dañ koy bàyyi kon daal bi mawti bi mawti baax di nga bi xaraaji baax di foofu moom dana ko dee mi ngi sa kanam mën ngaa xëy rek ñaa ñàkk nguur ci ñaari anam la doon <laughs> benn nga jóge fi wala nga foole ko dëgg la te benn bu ci ne nag jóombul kenn waxoon naa la ci njël wala lam yesa wala yesalu yàlla yàlla rek ko yor kon nguur gu ne day jeex. kon nag benn nga faatu wala nga fo wala nga fooli ko. te boobu xidaaj bi baax na day mel ne ay misaal bari na si jamono ji. Ah, ay xëy rek tey gis rek ñuy maanaam tey. ñu la daan escorté tey ñu lay toroxal yoo lay toroxal sëñ bi. Hmm. maanaam yow ba da nga daan génn sëñ bi. Hmm. mbooloo topp la. Hmm. ñu ne kilifa ñëw. tey bi ñu lay génne dañ laa ceene <laughs> moo tax adduna dafa tëral. dëgg la dëgg la yaa daan du ma waate. Hmm. ak a fitna laate. tey la yow la ñu toroxal léegi ñu lay toroxal di la fitna yow la ñu toroxal léegi <laughs> adduna ñu <laughs> la <laughs> ñu jàll bala. tey tey waxtu bi day mel ni mi ngi dem baax. léegi. Hmm. tomb ba ci mujj. Hmm. mooy mu wan ko ne ko nag. ginnaaw bi yëpp yeesoo. xam nga ni nga war a jàppe nguur. xam nga ni nga war a gouverner. xam nga ni nguur gi dañ cee nekk waaye gaawal njëkkanti bala ngaa faatu. wala nga folliku mm-hmm. léegi nag maa ngi lay sant loo xam ne boo ko defee mm-hmm. mooy tax nga am jàmmi àdduna mm-hmm. mooy tax nga am jàmmi àllaaxira mooy faj tahit wala waaw faj tahit fii ma yanfauka fi daarayni qabla xurujika min an-niam wa qabla xuruji niami minka kon farlul ci loola mën a jariñ àdduna ak àllaaxira bala ngay bala ngay génn ci lii la yàlla jox ci am koom ak xéewal ak pal waaye njëkk xéwal gi ak koom mi ak pal gi di bàyyi ko ci sa loxo gaawal farlu ci lu lay jëriñ adduna ak allah gis nga loolu suñu seetlu mm-hmm. wan na wan na ko ne wan boo bëggee jàmmi adduna boo folli koo mm-hmm. da ngay jubal ndax nit boo bëggee jàmmi adduna nag boo follikoo te kenn du la topp da ngay jubal mhm. boo bëggee jàmmi àllaaxira it mooy bi nga folli ko da folli ko waaye da ngaa farfaatu mhm, mhm. foofa it noppal lay nekk ci yow rek noppal lay doon ci kon farlu ci lu lay jëriñ adduna ak àllaaxira mooy lan jubalal rek jubalal rek boo jubalee boo folli ko ci adduna noppalu boo faatoo it àllaaxira noppalu kon njëriñul adduna ak àllaaxira nga farlu ca mooy nga jubal daal ne intahati nasiha li ma la doon wax fii la wax naa la da nga war a yore nguur mm-hmm. wax naa la danga war a gouverner mm-hmm. wax naa la boo yoree nguur la nga war a bàyyi xel mm-hmm. wax naa la la cay topp boo xolli ko wala boo faatoo léegi nag lii ma la doon wax fa in qabiltaha soo ko nangoo falaka saw yiwu kese yaa koy jëriñu wa illaa boo ko xamee ba noppi lànk jaar feneen fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ci yàlla la bokk dellu yàlla àtte suñu diggante. te boobaa dana métti si yow. dana métti ci moom <laughs> kon sëñ bi. Mm-hmm. dëgg dëgg sëñ Saliou. Euh, waaraate gu mel nii. adduna da ko soxla. da ko soxla jamono mm-hmm. réew mi daf ko soxla. Mm-hmm. soxla. nañ ay kilifa diine yu mel nii. ci dëgër. ci bëgg yàlla. ci sàmmonte mm. ndax sëriñ bi lii rek duñ ko faral di ne am na leneen wax nañ ne am na ko mas a ñu mas a ñëw ci ay ay ay mag yu mas a ñëw ci moom ci mm. jamonoom. Mm. ne ko dañoo bëgg a dox sa diggante ak tubaab bi lu muy wax mu wax ko ñun yow nga nekk sa jaamu yàlla dégg naa sëñ bi ne leen ñooñu de kenn doyuma sama diggante ñoom ndax képp ku dox sama diggante ñoom benn ñu xëpp la ba ragal loola wala ñu xëpp la ba xemem loola te ñun amuñu lu ñu ragal amuñu lu ñuy xemem mm-hmm. kon sëñ bi day mel ne foofu day dàq ñi yenn kilifa yi nga xam dañ naan moom wàllum siyaasa moom dañu ko jàppee yëre bu tilim boo xam ne doon sëñ xam nga wàllu politique mm-hmm. politique am dañ koy wasf ci ñaari mm-hmm. am na siyaasa mahmuda am na siyaasa mm-hmm. madmuma côté positif ak côté négatif dafa am politique bu bon moom politique bu bon boobu moom la sëñ Tuubaa di dawlu moom la ñuy wax ne rot na ci yenn ci ñu koy faral di nettali ne baa gi ak laam geeg taa geeg kaaf gi hmm. ñu ne baa gi da ci wax ne mooy al boodu min allah hmm. day tax nit ki sori yàlla laam gi mooy laanatullah hmm. day indi rëbbum yàlla taa gi mooy tarku diinillah day tax nit ki bàyyi diini yàlla yi kaaf gi mooy alkufur billah <laughs> waaw mooy politique bu bon moom sëñ bi daf ko doon dawloo wa man yusharikum huna fi izzihim yakun sharikahum gadan fii dullihim képp ku bokk ñoom seen tedd nga dina bokk seen toroxtaan ëllëg ëllëg sax laa tarkanoo illa alladina zalamu mm-hmm. ba muy ba muy digal euh, maxtar day man di ko di ko dénk mm-hmm. kon bu ñuy wax bu ñuy wax bu ñuy wax euh, waylun liman illa nasara maala li kay yanaale miknatan aw maala mm-hmm. kon politique bu politique bu bon la amma politique bu baax nag kooku daa mënta ñàkk moom dëgg la tàmbale ci sayidna muhammad politique bu baax moo tax fatratu makka bokk fatratu madina mhm. fatratu makka kon sëñ Saliou mhm. euh, nun ma ko nun maanaam jëmmi jëmmi madina moom fat bu dee fatratu makka euh, dañuy jëfandikoo politique ndax l'islam dafay toora dafay door a installé wu euh, mhm. stratégie yi ñu jël ba l'islam am ak génn tasaaroo ba ñeneen jot ci ba mu law law bi ba egsi Madina. Mhm. fatratu Madina bu dee fatratu Makka moom mi ngi tarkiis ci wàllu wàllu aqida ay wàcc day day gën a woo nañu ci wéetal yàlla boo ñëwee ci Madina nag ay wàcc ci jëm ci wàllu husnul muamala wala jëflante. Mhm. ay muamalaat kon siyaasa mënut a ñàkk ci dara. dëgg la loo gis rek siyaasa yi tax nga mën a egg fa nga jëm. kon bu ñuy wax sa siyaasa rachida siyaasa mahmuda loolu mënta ñàkk ci dara moom mëni su ko kenn kenn kenn mëni su ko daal soo kon mooy doxalin wu rafet mooy doxalin wu rafet rek mm-hmm. Mm-hmm. moo tax may faral di wax ne euh, buñ doon résumé mm-hmm. pour tënk mën nañu mën nañu wax ne kilifa ak diine gu jàng diine ba xam ko yeewu ci adduna yi teg ci ba mel ni sëñ bii nii kooku bu jiiteem réew wala bokk mu nekk doole ci pegg ku jiite réew. nekk mustasaar nekk mustasaaram. Mm. yaakaar naa réew ma pour mu tegu ci yoon mu ci ci ay fitna dana yomb. Mm-hmm. kon loolu lu jamono soxla la ci jamono ñu tey. mel ni kon jamono soxla na ñaar yi. Ah. boo xam ne day diglu kilifa diine. Mm-hmm. waaye kilifa diine ko mën na ko. lu joxe kàddoom. Mm-hmm. na nam ko war a joxe. jamono daf ko soxla. loolu lañuy ñuy ci biir euh, wasiya bi. xam naa kon ñu lay ñu ñu la ci desaati mooy lan. kon boo doon tënk li nga doon wax lépp mhm. pour ki ñu doog a jot wala koo xam ne nii mhm. wax ju guddi ji daf koy sonal mhm. mën nga ko wax yi may waaj wax bi ci njëkk mooy ndénkaan la boo xam ne dafa bàyyi ko ci kilifa ak diina gu mat la mu doon jëm ci buurub àdduna bu doon sàkku ci moom mu waar ko benn ñaareel ba mooy ndénkaan bi bi ko sëñ bi indi daf ko séddale ci ay pàcc pàcc bu njëkk bi mooy wan na ko ci njëlbeen luy tegtale ne nguur gu nguurug yàlla du sax du sax kon war ngaa góorgóorlu bu baax a baax te xam ne danga nekk ci nguur waaye day jeex benn ba ca teg tomb ba mu ca teg mooy wan na ko ne ni nga war a jàppe nguur ba doo torompoo yëg gi ngay yëg ne daay bàyyi ko ci loxo ñëw ci say loxo dana jóge ci say loxo jëm ci yeneen lox ñaar ñi ñaar ñettee ba mooy wan na ko ne boo yoree nguur nan nga war a gouverner ci dimbale néew ji doole yi ak mooy tuttu ba mu jógee wan na ko ne ko xiiwal gi nga nekk nii ba ngay bég bii sa ngi ñëw nga ñàkk ko kon nag gaawal njëkkante bala nga koo ñàkk mm-hmm. te ni muy yombee ni ngay yombale booy sàkku boo faloo it na demee noonu waaye bu mu yomb ngay sàkku nga folliku mm-hmm. nga nga nga nga falu jafeel mbir yi fa mu mujjee nag mooy wan ko ne ko euh, boo bëggee noppalu ci àdduna noppalu àllaaxira mm-hmm. mooy da jubal jubal mooy tax boo folli ko kenn du la topp di la fitnaal ci àdduna mm-hmm. waaye boo faatoo kenn du la topp di la fitnaal ëllëg yomal xiyam mm-hmm. mu jënti mu jënti ab tëkku nag ne ko fii laa yem nag ci labiré soo ko toppee sa yiwu kese la bis boo wuuteeg moom ñun ñëpp dañ bokk daje ci kanam yàlla jërëjëf sëñ Abdou Lahad day mel ne euh, waxtaan yi mm-hmm. maanaam day mel ne bataaxel bi moom day mel ne sëñ bi jamono ji la ko doon bind ndax day mel ne nuqta boo si jël rek Eh, day mel ne am nga loo ko koy mën a misaale si jamono jii ñuy dund nii. dëgg la waaw ah, jàngat par point mm-hmm. yaakaar naa moom. Mm-hmm. jotaay bi dana gën a yàgg. dëgg waaye li nga si wax rek day mel ne doy na sëkk. Mm-hmm. kon soxla nañ kilifa diine goo xam ne ku mat lam doon. ndax xëy na kat eh, mën naa am kilifa diine yoo xam ñi ngi waaree am na fi waaye ku mel ne sëñ bi. Eh, yombatut. bu fekkee mën naa am sax lañu ñuy wax. mënta am waaye kilifa diine maanaam fekkee. kilifa àdduna sàkku na seew nga koy waar maanaam taxawaay ba nga sa war a taxaw day mel ni moom la lettre bi jëmmal kon lettre bi ni nga ko waxee rek dañ ko war a traduire si ay ay langues yu bëree bëri mhm. ba mën nañoo dem ba koy jàngale si université enseignement supérieur ndax lañ fay jàng kat lii moo ko solo dëgg la kon lettre bi maanaam jaadu na ñu def ay dirasaat ay jàngat yoo xam yu gën a yaatu la dëgg ngir nit ñi mën koo jariñu ndax njariñ yi mhm. njariñ yi si nekk bari na bari na lool lool dëgg kon xam naa duñ guddal foofu ndax waxtu wi mi ngi mi ngi mi ngi xaw a dem mm-hmm. dañuy sant sëñ Abdoul Ahad si waxtaan wu am solo yi xam naa ñu ngi jéggalu bu baax si dog gi ñu doon dog <laughs> yow doo ko da nga doon leeral <laughs> ñu ngi jéggalu lu baax a baax te di la sant bu baax a baax comme ni ñu ko waxoon ne commencement bi si yombal gi ñu ko yombal rek mm-hmm. euh, jàppandi beeg disponibilité beeg mm-hmm. lépp rek ñu lay sant di la gërëm di ñaan suñu borom yokk xam-xam bi te defal la tawfeex guddal fan wi yokk wér gi te sàmm la. ndax a euh, dëgg yàlla ko bëgg xam-xam nga. Mhm. ku ne nangoo sonn nga ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm si. tur daayira Muqaddamatul Xidma di sant mboolem ñi ñu doon ñi ñu doon topp si. MKTV. Mhm. Euh, mhm. leen wax ne ñi ngi tàggatoo yéen fii yéen ñaanal euh, guddik màggal ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu